ñaar ci ñoo xam ne war na ñoo def déclaration patrimoine waaye nag bi ñu ko ma lu toll si juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo def déclaration patrimoine am na ñoo xam ne nag ay or la loi lañ maanaam ñoo xam ne dañoo lank kandaare bañ a def li nga xam ne mooy déclaration patrimoine fan la ñu ko teg mooy jalgati yoon ndax am na lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne dañoo lank ba tëdd sa naaj wa lànk bañ a def déclaration maanaam 459 ay hors la loi Mamadou Badio nga xamante ni jamono ji moo jiite conseil constitutionnel bokk na si ñi lànk bañ a def déclaration patrimoine te nag ndax xam ngeen ne Mamadou Badio Camara dafa war a def déclaration patrimoine waaye nag daf koo lànkoon waxoon nañ ba mu lànk ba tëdd sa naaj wa waaye tamit Ismaïla Madior Fall mii ay jamono waxoon nañ ko defal déclaration patrimoine waaye defu ko woon waaye tamit ki nga xam ne mooy Mamadou Sow mi fi nekkoon ay jamono semga moom tim waroon naa def déclaration patrimoine si ay jamono te ko woon a ñëw ak ñan ñoo war a def déclaration patrimoine ak ñan ñoo ko wër te def ñiy jalgati yoon ak ñi jalgatiwul yoon loolee ma ngi ci biir journal bi yéen kay gi de la te mooy xëy dañu xibaar nañu askan wi nga xam ne ñoo yeewoon Dakar sonn nañ ba maara day tale ci ndox mu bari mii inondation yi askan wi nga xam ne dañoo tëmb ci ndox mi te nag am na ñoo xam ne ba léegi kër yi dañoo nangu seen ndox yi te ñi nga xam na ñooy kilifa yi maanaam wane nañ seenug tële ma na la gis nga Macky Sall ak ñi mu ànd wane nañ seenug tële ak seenug cuune ci lu ci inondation yi firndeel yow mooy askan waa ngi ci biir ndox mi te mënuñu leen a génn ci biir ndox mi loolu bu nekkul tële loolu moom lu mu doona waaye nag li ci gën a garaaw mooy Macky Sall ci boppam nekkul ci réew mi askan waa ngi sonn Macky Sall ma ngi ci biir avion yee Sénégal jamono ji ma ne la Sénégal moo soriye wut ak bato boo xam ne amul ab commandant est-ce que sax Sénégal jamono ji ñoo ngi koy gouverner loolee ab laaj la yéen kay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu ci diwaanu Ndakaaru am nay quartier yoo xam ne bakkane woon nañ lool waaye quartier yooyu yàqu nañu ndax mooy point E bakka woon na loola waaye tamit quartier bii nga xamante ne mooy Almadies di ne woon na loola waaye nag quartier yi jamono ji ñoom tim ñoo ngi ci biir ndox mi mën na la cadre de vie bu bon boo xamante ni bu degrade bu yées yéen kay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu askanu Sénégal sonn nañu kilifa yi wane nañ seen incompétence wane nañ seen incompétence yéen kay gi di Vox Populi Déthié Fall nee na nag ab enquête parlementaire ci inondation yi loolee ci boppam mënut a ñàkk waaye mënuñoo jël ay milliards ne dugal nañ ko ci inondation yi te ba léegi nii askan wi di jànkonteel ak ay jafe-jafe ñu bëgg koo bàyyi mu sedd loolee yomb na lool ci réew mi moo tax di cafaal nee na ay enquête parlementaire ci wàllum inondation yi ci assemblée nationale loolee mbir la moo xamante ni mënut a ñàkk askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Kër ma Massar Nord ñoom tim sonn nañu ba maara day taali maire bu Kër Massar Nord nee na plan Orsec bii nga xamante ni état bu Sénégal moo ngi koy wax amul benn matériel boo xamante ni waa plan Orsec ñëw nañ jàppale ñu ko ñun waa Kër Massar plan Orsec bi waa Kër Massar gisuñu seen bopp maire maire ba ci boppam moo ko xamle maire Kër Massar Nord yéen kay gi di réew mi ko di wax ci mbir yi Mamy Touré Diallo mi nga xam ne fan yi ñu génn moo ñàkk bakkanam ca diiwaanu Kédougou ginnaaw bi muy am doom journal bi nee na am na ñetti médecin yoo xam ne tegoon nañu leen loxo waaye nag may nañu leen ab liberté provisoire contrôle judiciaire yéen kay gi di Libération Malick Cissé mi nga xam ne mooy jëkkëru Mamy Touré Diallo moom wax na nee na ñii nga xamante ni ñooy médecin yi nañu ko nangu ñoo rey sama jabara rey tamit sama doom médecin yi manipulation la ñuy def chantage la ñuy def bu ñu waxee ñu ne dañuy grève xawma lan ak te nag rapport bi nga xamante ni ministre bi ñu dénk wàllu wér yaram gi génn na ko ay kàcc ki fen la dara du ci dëgg Malick Cissé moo ko wax mooy jëkkëru Mamy Doura Diallo mi nga xamante ni moo am doom far ñàkk bakkanam ba tey ci biir yéen a kaay la témoin nee na justice bi ci boppam procureur moo daw deltu ginnaaw mën la ci pression bi nga xam moom la ministre de a jamono ji mer nañu ba maara day taal yi am na benn mouvement bu juddu mouvement boo xam ne ñoom nee nañu dañuy xeexal parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye mii nga xamante ni moo jiite au conseil des collectivités territoriales bis buñ ko fa jëlee bis buñ ko fa jëlee bis buñ ko fa jëlee yóbbu fa Pape Diop boobaa nag maanaam dinañu jàmbarloo ak coalition Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall waa parti socialiste ñenn si ñoom ñooy wax ndax ñoom nee nañoo am na loo xamante ni mënatuñu koo nangu ndax mënatuñoo nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar maanaam ñu leen di séddlu tuuti ak nag di leen di toroxala yéen kaay gi di vox populi ñu koy fekk fa Abdou Sané nee ma bu passé fa nee na juróomi groupe parlementaire loolee lu baax a baax a baax la ci opposition bi mën la njariñ la dina tax assemblée nationale maanaam président ba dafay minoritaire te nag li nga xam ne mooy vice président yi yeewi ci boppam ak wàllu daf koy séddoo ak waa Benno Bokk Yaakaar li nga xam ne tamit mooy secrétaire élu yi Benno ak yeewi ak dañu koy seddoo li nga xam ne tamit mooy questeur yi Benno ak yeewi ak dañu koy séddoo loole moo tax groupe parlementaire yi baax a dafay tax Benno Bokk Yaakaar xam seen bopp yéen kaay gi di enquête nee na nag député yi am na lu toll ci 73 député ay jigéen ay femmes maanaam juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay député yu jigéen ci assemblée national bi waaye nag jigéen ñi ñoom daal nee na ñu dañoo bëgg a jiite assemblée nationale yéen kaay gi di réew mi ko di jeexee duñu xibaar naan ñu compagnie sucrière sénégalaise explosion bu garaaw moo fa ama ñu bare bari journal bi nee na am nañu fay gaañu gaañu yéen kaay gi di la tribune nee na ana étudiants yi ana jàngalekat yi nekk université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ma ne la ndax yëg ngeen ne université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ma ne la ñoo ngay dagg suuf sa de ñoo ngay dagg suuf sa ma ne la di ko jox ay promoteur école nationale économie appliquée foofee tamit ñoo ngay dagg suuf sa di ko jox ay promoteur a yéen kaay gi di sunu làmb xëy def bilan écurie Lansara nee na am na lu toll ci 77 victoire 9 défaites benn sans verdict yéen kaay gi ne na face à face bu njëkk diggante Tapha Tine ak Bombardier fukki fan la